asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com tey jeudi 20 mars 2019 ñu ñëw génn ci yéen kaay comme ni ngeen koy amee chaque jour wala 21 mars ma ci ànd ak Jamaïcain borom Saloum borom Sine borom Mbirkelane FM borom Voice FM Jamaïcain maa lay nuyu. Lamine maa lay fay di la ziar di la jox sa wàccuwaay comme ni nga ko waxee tey jeudi 21 mars 2019 ngay ànd ak man si kaay bi namm naa nag waa yaa ma raw. ñu ci ànd ak Voice FM ba ci Gambie mbir kalaan FM ba sa saalum maa la raw Jamaïcain waaye nag comme ni ma ko waxee rek Jamaïcain en route vers le 14 avril diggante Big Pato ak Wuli combat boobu rek laa ciy tull ñu ànd ak ñi ñu doon àndal muy MSD Prestige ak MSD Impact di jaay ay oto. di loué ay oto di jaay tamit ay pièces détachées yaakaar naa ne combat bi sax nar nañ cee dugal seen i loxo ndax feccum liir bu neexee nday jaay tey ci mbëggee jame kii wax ko ci kaw de MSD Prestige ak MSD Impact point com nag ci jaayam oto la ñuy yëngu ak jaay ay pièces détachées yoo xam ni maanaam ku ko jënd monté ko sa oto doo ko réccu ñoo àndoon nag li tv point com nag di gunge Jamaïcain ak Lamine ci revue de presse bi loolu nag doyatu leen lamb ji Jamaïcain yi tëgg la 14 avril na si gars yi adduna bi yëpp séentu MSD Prestige MSD Prestige léegi day wàcc biir géew bi di def ni comme gaay di yenu di yenu di daan ndax yëmatul léegi ci Leewtoo rek bu njëkk dañ ko doon revue de presse léegi nag dina ñëw ci làmb ay VIP di sol blouson am comme ni ko gaay yëpp di gisee MSD Prestige Jam Production Lamine MSD Prestige MSD Impact Modou boo bëggee oto bu baax demal MSD Prestige ndax yéen ñaar ñëpp seen oto yi am na problème temps yi yoru ay oto yu baax dem leen MSD ñu jaay leen ay oto yu baax seen numéro téléphone ku ko soxla mën ngaa def 84 beneen numéro nga def 77 393 33 10 ñu ñëw ci journalu démb bi ak journalu tay bi lii Max Mbargane wax moom yaakaar naa Pape Thialis moom bi ko yàlla mayee ba mu taxawal combat yi amateur yëpp danañ bëgg man dinaa bëgg Jamaïcain dana bëgg Youssou Fall dana bëgg Max Mbargane nag mooy coordinateur Leewtoo production am na lu muy wax nee na Pape Thialis nag am na lu mu bëgg mooy tëgg fi combat yi nga xamante ni mooy yëngal làmb ji mooy jaxal làmb ji Ama Baldé Tapha bu loolu jamee kay revanche la revanche bu neex comme ni nga ko waxee journal bee ko indi journal bi nag ki ñu indil kenn la di kron ci lambu muy père Max Mbergane waxul xamul draaki caaxaan moo tax bu génnee lii rek ci bi bu yeboo amateeru lamb yëpp nañ ci bàyyi xel père Max nag li mu ñuy waxal mooy Pape Dialis moom li mu nar ak li mu mébét ci soxna bi saison bii ñu jëm bu ci njëkk mooy bi mu ñu tegal nii ci kaw ñu ñëpp di ko gis muy revanche boo xam ni amoon na fi diggante tafaatin Tine ak Ama Baldé Max Mbergane nee na loolu moom amateur bu yeboo ñu xam ne daanaka teg nañ ko seen loxo ñu ngi si bu baax a baax te koy taxawal na taxaw ndax combat la boo xamante ne Jamaïcain day bëggal amateur yi Ama bu ñëwee rek ba gars yi tëggal ko ku ragal Ama ñeme doomu Pikine bi laay walaay doo ragal Tapha ñëw wàcc ba suuf ni taq ci rëbb Ama Baldé tey nga taq ci rëbb te revanche la Ama Baldé da koo daanoon te yaakaar naa ne Tapha Tine revanche yi gën soxla ci àdduna combat boobu la ndax gis nga ko nee na moom moog Ama Baldé bu ñu leen yeewoon ci àll. fu mu ne ko jaarloo fu mu ko jaarloo dana fa jaar. waaw loolu daal waxu tafaatin la moom ñoom ñaar combat boo xam ne ñu koy dox comme Lamine li ngay wax rek Ama dañ ko moom nag nañ mu daan ma waaye man ak moom bu ñu dajoon ci àll lu ma ko wax loolu lay def bu ma ko ne jaaral fii foofu lay jaar loolu nag waxu tafaatin la loolu nag gaay dañuy ñaan rek na combat bi taxaw ñoom ñaar ñu rek ko ci biir géew bi ak Gris boobu tamit bokk na ci mébétu Pape Thialis Faye mu nekk combat boo xamante ni combat revanche la bëre woon nañ ñoom ñaar 2007 war a bërewaat bu fekkee yàlla dogal na combat boobu antu loolu tamit yaakaar naa ni njërneem lay doon ndax ay poids lourd la jamaïcain yoo xam dañuy xeex waxoo waxu naka sa xandaan xam-xam nga wax tafaat kii la ñu Gris Bordeaux ak Bombardier ñoom ñaar nag dañ fi daje woon Gris Bordeaux am ndam ci kawam moo ñoom ñaar ñi ñu tegle leen pour ne wax seen combat combat bi nag nekk na combat boo xam ne combat poids lourd la bu taxawoon tey lamb yëpp nañ ci gis seen bopp ndax lamb ju neex la lamb ju doy waar la Lamine beneen boo xamante ni ñëpp danañ ci gis seen bopp ba léegi ci Pape Thialis Faye rek muy ak Papa Sow boobu mooy troisième combat bi ci yi nga xamante ne Max Mbargane wax nañu ni Pape Thialis bëgg na ko waaye Max bu ko waxee yaakaar naa ni lu leer lay doon ndax mooy coordinateur bi comme ni ma koy waxee chaque jour. Pape Thialis ko amateur yi xaar muy Siteu de face boobu tamit ñoom dañ ko bëgg taxawal ko mu nekk trois grands combats yoo xam daal dinañ ko indi si li reste saison bi Lamine. du mën a ñàkk waaye nag Jamaïcain la ca gën a neex amateur yi doon déglu sànq ba léegi léegi ñiy déglu TV point com loolu ci saison bii la ko bëgg li ci li ci des mooy ci benn journée la leen bëgg bëgg boole Tapha bombar Bombardier Gris Bordeaux ah, ak kan Bombardier Gris Bordeaux Ama Balde Siteu Papa Sow loolu xajul fenn waay bi demee kenn. amateurs yi ñoom bu fekkee dañ loon laaj bor bu leen promoteur yore ren ba naan làmb ji ren benn grand combat la ñu gis Pape Dialis moom dafa fas yéene fayal leen bor bi yépp mm-hmm. moom nee na ñetti grand combat VIP yi ñu naan ren bëreewuñ kenn ci am combat wax jooju da koy teggi teg fee mm-hmm. ñetti combat VIP la bëgg teg si li fi im fi fekkoon ay la deger boo ñaam Modou Lo Eumeu Sène Moussa Ndoye Garga Mbossé mm-hmm. moom dafa bëgg a indiwaat yeneen ñetti grand combat yoo xam ne da ci ciy def boobaa benn VIP ren duñ ne bëreewul ñaari VIP yi tamit wax nañ ci seen combat lam ci wax nag moom moom Max Mbargane mu gudd mu gàtt nee na ku ci daanu ñoom ñaar di nga am ak problème say fans waaw loolu waxu Max Mbergane la Eumeu Sène ak Modou Lo lay dankaaf di leen wax li nga xam ne moom mën a ne moom bu fekkee gars yi dañ koy raay di tëb ak di wéeri moom wéeriwul xam nga Max moom ay waxam nee na Eumeu Sène ak Modou Lo daal ku ci daanu moom xaw ma kan koolul am ak problème moom waaye say fans bokku yaag say fans moom jàppal di nga am di ngeen ko si dëkk bi dalul yomb kii moom dafa mel ne amul ak problème muy Alioune ndax 21 mars 94 la fi nekkoon ba 21 mars 2019 mu naa yaakaar naa ne 25 ans lay doon wala 26 Alioune nekk ci làmb ji tey mooy vingt cinq anniversaire u CNG yaakaar naa ne vingt cinq ans nag ah ku ku ku ku doxalul kenn du la fi bàyyi ndax ñetti président ñëw nañ bàyyi ko fi treize ministre ñëw nañ tamit bàyyi ko fi mu doxal. waaw bu bu réew mi di waajal seen défilé moom ay un mois ci kanam Père Alioune Sarr moom bokku ci moom bosam mu ngi koy def tey vingt cinq ans lay défilé mu ngi ni ñu wan ñu bi mu ngi dox ay jéegoom di dem. wan nañu daal journal bi nañu kii vingt cinq ans ko dénk lii mu yor ko ku doxalul vingt cinq ans nag duñ la jox benn mbir la mel nga yor ko nga yor ko ku doxalul. Mm-hmm. doxal na moo tax ñu jox ko làmb ji mu yor ko vingt cinq ans. ñu ngi koy ñaanal rek yàlla na bi yàlla wëral cër yi liggéey bi gën dem ci kanam liggéey bi gën a jëm ca kanam ñii tamit ñu ngi liggéey muy équipe nationale bi olympique bi lutte olympique bi yaakaar naa ne mu nga war a am le le 23 ba le 30 mars fële ca Thiès yaakaar naa foofu lay amee waaye équipe nationale moom commencé nañ seen regroupement fële ca Léopold Sédar Senghor. waaw ligue olympique bi si lañ ñuy waxtaay dañu ñëw wàcc génnal ñu di ñuy wax la fa am gars yi ñoom dañuy regroupement. fële ca Léopold Sédar Senghor Lamine fa la ñuy defee regroupement regroupement bi nag li ko waral mooy ligue olympique bi nga xam ne moo war a amee fële sa Thiès Lamine. fële ca Thiès le 7 avril yi daal ñu ngi moo war a ñëw ak Ousmane Gandigal Kool bu Zap Balla Gaye Junior Forza numéro 2 combat yooyu yaakaar naa ne programme la bu saf-saf bu jëmee waaw loolu jëfi Idda la moo ko def Balla Gaye Junior la ñuy indil Balla Gaye Junior ak Forza bu fas ñu ne déet na waaye mu indil ñu Ousmane Gandigal ak Kool bu Sap nekk na ñaari combat yoo xam ni làmb ju neex la ju doy waar la stade Iba Mar lay amee Lamine beneen làmb ju neex di làmbu xale làmb ñoo xamante ne saf nañ xorom lool guy gi 95 xam nga ko borom français yi ak Mbaye fay Faye fee ci mu réew mi waaw boobu làmb boo xam ne ay lambu espoir lañ guy gi 95 ak mbay gay fay mu nekk lamb joo xam ne ñaari mbër bu ñu tuusee mu neex bu ñu bàkkoo mu neex bu ñu bëree mu neex Lamine. Njaafaat tey 1 million cent mille lañ fa teg kii tey ci Zed bi Jamaïcain loolu yaakaar naa bu la ko dara jëral. demal nga jëli ko jëm balaa ma cee commentaire yow laa yebal Lamine demal ma njaafaat fan yi ma jot maa ngi ci la 14 avril bi Lamine demal njaafaat jëlil ma 1 million yi ñëw ñu dugal ko ci bi yaa ngi ci la 14 avril bi maa ngi ci la 14 avril bi ndax boo xëyee jaar gauche ma xëy maa ngi ci laay Pythagore laa jóge su ma ci la 14 avril Lamine yaa ngi biir jam production si lañ nekk heure bu ma xëyee jaar gauche yaa ngi ci droite Pythagore wax na loolu doy waar si journée bi suba yaa nga jëm sa ñàkk jariñu wulleeg bi pato nañ la xaar brise de mer numéro 2 Zal du mën a journal bi war nañu programme yi nga xamante moo war a am ci weekend bi diggante Mame Balla la ak Tafa Mbër ñoom ñaar Assane Ndiaye moo ko tëgg samedi lay am 23 mars fële ca stadium Iba Mar Diop combat bu nar dox ci général bu Malika ak Mbayteen yaakaar naa ne samedi stade Iba Mar Diop dana wàcc. Assane Ndiaye la bu la neexee nga ne borom Bawol production moo def loolu Tafa Mbër la la indil Mam Balla général bu Malika ak Mbaye Tine drapeau laa Diop kaas ñu ne déet na waay Youssou Ndour Boy Seyde loolu nag moor Mbaye moo ko indi pour dimanche la vingt 24. le 24 kon samedi ak dimanche yëpp le stade bi ñoom Iba Mar Diop moom day yëngatu amateur yi danañ mandi làmb ndax combat yi moom stade bi day fees dell. non gars yi bu fekkee dañu yore loon amateur yi moom amateur nañ xam ne dinañ leen ko fay ba wis ndax li des si saison moom boo bëggee dégg-dëgg journée boo làmb rek fees na tamit journée yu neex. du mën a ñàkk journal bi tamit war nañu combat Bazoka ak Bruce Lee ba mu koy daan nekkoon dimanche 1er mai 2011 Gris a bëri ak Reug Reug jour boobu la Lille avec frappe. waaw moo tax ñu wan ñu ko Basoka la ñu wan Brésil daan ko moo lay war a xamal ne lii lu yàgg la ndax Basoka moom bu fekkee jamono ji buy daanu États-Unis la koy fekk fa lay daanu ji gëj na ci làmb gëj nañ ko gis. ma ngi bii bii moo daan. bii Basoka moo daan waaye fi ñu wan nii Brésil. Brésil moo daan Basoka moo daan première action bi arbitre bàyyi ñu sifflé Basoka def recours. ñu dem ñu jox ko ndamam. waaw noonu la demee waaw fi ñoom ñaar kenn ku nekk daa daan moromam moo tax affiche bi xaw ma jaaxal bii moom moo gis nii Brésil yi moo ko daan waaye nag bi ñu defee recours basoka lañ mujj jox ndam li mu nekk làmb joo xam ne boobu Brésil Lamine mu ngi ci digg ndëndam. du mën a ñàkk ñu nuyu gars yu suivre le tv point com yëpp di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy Abdou bu xarañ loo mam Balla Gaye Italie Zé borom Koro ak doomu ndeyam di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy mooy mooy Cheikh Bass borom Kër Massar groupe xew-xew làmb ji ñu ngi leen nuyu ak groupe Lutte TV Max borom mbuur maa ngi lay nuyu di nuyu tuuti Yaay Sarr ak Omzo bu Garga. Sëriñ du ma ko fàtte doomu ndeyu Osod ak ak rakam Saliou Diouf ak Abo ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu waaye Yarax yi ñoom ñëpp dañ leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay Lamine képp kuy suivre Lutte TV point com ñu lay ziar di leen nuyu rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci groupe whatsapp bi képp ku nekk ci groupe whatsapp bi di dundal Lutte TV ñu ngi lay ziar la jox sa wàccuwaay di teg nuyu bi nag ci loxo tuuti ay saar moom suñu xarit la suñu lépp la Lutte TV yi dundal ñu ngi koy nuyu baax a baax di dem ba korek nga wax rek di nuyu Zé ak suma grand Bara Gueye ñu ngi koy ziar baax sama doom baay maa ngi koy ziar di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal jàmm di nuyu ñoom gil si depuis Gambie ñoom Jinne Mori ñëpp maa leen jox seen wàccuwaay di dem ba états nag Lamine di nuyu sunu xarit sunu grand Aliou Ly Matar Boussa Abdou Dramé léegi seen mbeeloo ngeej ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit nga xamante ne mooy laay bu nga xam ne moo fa nekk ñu ngi koy nuyu baax a du ñu fàtte kenn Babacar Sylla taalibe Serigne Mbaye Sy Abdou ñu ngi koy nuyu di nuyu Jibi Sow sama xarit waaw du fa du mu fàttewuma kenn daal Zé borom Corée maa ngi lay nuyu doomu ndeyu guy gi ak Bousse doomu ndeyu Balla Gaye numéro 2 ak Pape Diouf. non ñoom ñoom ñu ngi leen di leen jox seen wàccuwaay di dem ba Ita eh, di nuyul Nicolas Faye mu ngi mu ngi ñuy jour ak Baara Gaye di ñu ngi koy ziar xaritu yaayam ñu ngi koy ziar di nuyu tamit ki nga xam ni mooy nii Dia doomu ndeyu Diouf depuis Espagne Lamine chaque jour daf ñuy suivre ñu ngi koy ziar baax di nuyu gauche droite Voblaye doomu ndeyu Khadafi ñu ngi koy ziar. Serigne Mbacke Mbacke ñu ngi koy nuyu ak soxna Anna ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit Ramdan fàqman bi xam ne dafa nekkoon ci yoon war a nekk mbër fàq dem États-Unis daw waaye nag buur jeudi bi yaakaar naa ne Pape Mbaye ak Double Tyson dañuy def face à waaw buur promotion moo def loolu mu ngi war a amee fële ca Gambie muy lamb ju doy waar la set buur nag da leen woo face à face incha rabi jeudi bii ñu jëm dina am états fa nekk yëpp Lamine. le 4 avril Jax moo woote fële ci Adrien Senghor ba nar faa teg 1 million 500 mise boo xamante kenn masu teg Adrien Senghor le 4 avril. le 4 avril bii passé nag la naa ñu ni leen défilé bi jeexagul ñëw leen ca làmb ji défilé bu neex baa nga foofu. Jax production la def na maninam moom loolu la ko ñëpp xamee day teg ay journée yu neex di teg miis yi am doole moo tax jël na miis boo xam ne kenn mosu ko teg fële mu ko far seen ko faa teg muy 1 million 500 ñu ngi koy ñaanal mu réussir ko Lamine. di nuyu képp ku ñuy suivre ci luttetv.com Khadijat Sow depuis Gambie ñu ngi koy ziar borom White House di nuyu grand Gils borom jant bi di nuyu ay rakam Balaka ak Emel di nuyu ñëpp di ziar ñëpp Lamine di nuyu sama xarit sama sëriñ. sa Cerno Ibrahima a baax. fat fat ba léegi fat fat wóore ba léegi dara mu nuyu tamit ki nga ne mooy Xaadim Dia bu Balla Gaye ak ki nga xamante ne mooy Ousmane bu xarañ loo Ousmane borom Soumbédioune ñu ngi koy nuyu Fatou Top ak Awa Diop bu Balla Gaye numéro 2. xaadim Balla maa koy ziar di ko jox wàccuwaayam di ko nuyu di nuyu famem soxnaam ak njabootam gi yëpp maa ngi koy ziar bu baax a baax sama xarit la sama grand la. di nuyu Jamaïcain Jamaïcain da ngaa joxe woon ak Mame la Gaye Italie ñu lekk sa avance bëriwuñ nga jox Abdou Darame avance ak Matar Bousso bëriwuñ léegi nag balaa ngaa joxe avance da nga koy xool ak kan ak kan jox avance. dama lu leen joxati avance Abdou Darame moom bi mu lekkee sunu avance dafa ñëw daw nëbbatu ci dëkk bi nekk fi kenn déggu ko. ma nga Birkelane waaw làqatu dem Birkelane jël ci avance bi takk seen ñaareel la. <laughs> naa kon ba ba subaa jàmm incha allah jëmee kii